kañ fi mu nekk nii on est la catastrophe. le euh, lu nekk mën nañoo dikk. te benn certitude que ni fii mu nekk nii lépp jàmm lal na ko. te wolof nee na taal bu tewee tàkk côté bu nekk nga koy jéem a. gis nga mbir mi il faut que ku nekk suñu interroger boppam fan la toll ak Sénégal. li nga keroog ci eh, dialogue bi wax naa benn wax def naa ni sénégalais yi dégg nañ ma. Mm-hmm. nee naa ni amul benn acteur politique ci Sénégal en commençant par le président de la République boo xamee ne toj nga fi dara ci réew mi lu war a tax nit di fi dee ngir yow. Mm-hmm. kenn toju fi dara ndax soixante ba fi tey jii on fait partie des pays les plus pauvres les plus endettés et la pauvreté et devenue une réalité. et c'est d'ailleurs la réalité. presque systémique. waaw ah, parce que gis nga tey ji da ngay xool ni ki nga xamee ni horizon bi gën a sore du sax journée demi journée la maanaam bu xëyee yeewoo suba mi ngi seen nan lay lijjantee boppam pour mm-hmm. añ. Mm-hmm. bu añee ba pare nan lay lijjantee boppam pour reer. su mu nee nekk. su ma nee nekk. Mm-hmm. su fekkente ni kooku loolu mooy condition de vie soo ko woowee sur projection wu benn jour du la topp boo ko woowee ci projection wu une semaine du la topp boo ko woowee ci projection wu weer du la topp at wala ay ati at du la ci fekk lii moo tax l'essentiel de notre problème tey jii wax naa ko léegi booy seet ñi nga xamee ni président Macky Sall moo leen mag ci réew mi 92 pour cent wu Sénégalais yi lañu tey jii xawma yan jamono ak ban idéal de programme de développement lañuy am mais li ñu amoon yépp dañ ko war a teg ci suuf réformer suñu perspective réorganiser suñu état réorganiser suñu redistribution des richesses jël l'essentiel des programme de développement yu ñu am centre que sur la frange la plus jeune taxawuñu leen dimbaliwuñu leen ndax état bi dafa échoué ci yar gi mu leen waroon yar ñun way juriñu ñu ci yar gi ñu leen waroon yar ñàkk gi ñëw ravager la fa desoon mhm. doon xor-xoral kon tey jii balaa ñuy naan bala nga naan naam ne fa mhm. avant de parler de Massamba ou de Mademba préoccupons-nous des ma majorité des Sénégalais mhm. yi nga xamee ne même violence bi ak noo ko mënti expliquer genre appel au secours la ndax dafa war a leer nañ ni ku am dépense am xëy doo nekk ci mbedd mi di taxawaalu koo xamee ni mën nga faj say soxla am nga programme bu fatt taraj doo tal lenn lu dul la nga xam ne mooy sa ittee. pourtant moom après les événements de mars daf ne ndaw yi dégg naa leen. waaw mais bu ñu déggee tamit tey jii ñun ñooy dund li fi nekk yàlla na ñu dégg te yàlla na ñu gën a dégg. yàlla na yàlla na ñu gën a dégg mais y' a urgence Adja y' a urgence parce que tey jii kenn mënatul xaar ba suba ba gannaaw suba te dafa am lenn loo xamee ni c' est extrêmement important mooy mujjee puso bi mu réer. parce que gis nga si on est ñun suñu génération bi bu fekkee mat nañu quatre-vingt ñoom quatre-vingt-douze pour cent des sénégalais ñoo ñu mag ça veut que ni du point de vue mentalité du point de vue séquence temporelle am nañu décalage bu rëy ak li ñuy dund ak li ëpp ci sénégalais li ñuy dund. suñu sàgganee ba système bi continuer nii mu continuer nii ñu bàyyi xale yi bàyyi ndaw yi si ñàkk taxaw gu ñu leen war a ñàkk taxaw ñu dérivé génération bi bu demee beneen Sénégal moo fiy taxaw. Mm-hmm. Sénégal boo xamee ni dina teeyal xelu nit. dañuy defante. Sénégal boo xamee ni dina mel na yeneen réew yi. Hmm, dañuy defante parce que il faut qu'on dise les choses. Hmm. parce que réew mi benn politicien liggéeyul le vivre ensemble au Sénégal vivre ensemble suñu maam yi sa jamono yi l'islam gu njëkk nga ñoo ko indi si réew mi. Hmm. ndax fii kat li ëpp ci sénégalais yi c'est extrêmement important ma daaneel foofu. yàlla dafa wax ci alxuraan ne adduwu ila sabili rabbika bil xikma wa mawisatil xasana wooteel ci sa yoonu borom avec la sagesse et le bon comportement loolu moo samp diine ci réew mi loolu tax mag yi dund ak tubaab bi plus de trois cents ans te diine jógewu fi kon dëkkaale koo xamee ni dafa am doole wala boog dafa la bëgg a wëlbati nga résister sur plusieurs siècles garder sa identité loolu suñu héritage culturel la suñu histoire la et j'ai l'impression que nii ñuy defee nii parce que coow li coow li coow li lan mooy li ëmb kenn dafa nekk ci pouvoir bi ni par force def ciy toog ñeneen yi nekk ci biti ni que par force dinañ la remplacer mm-hmm. te dans les deux sens fan la ci Sénégal nekk doo ko fi gis fenn fan la ci Sénégal nekk doo ko fi gis fenn parce que kii wane ni mat na dëgg dëgg dëgg liñ la joxoon mu mat sëkk yàlla nga def sa sumb benn sumbaat benn woote sa référendum ni jeex na tàkk gasi sa ay ñooñ yu bare yëkkati joxo ñu xëy suba naan ndax dinañ ko defam duñ ko def y a problème parce que pourquoi y a problème mm-hmm. c'est que y a deux des am na ku ñu escroqué ci diggante bi quelqu'un nous a menti dans les mm-hmm. deux soit bañ ñuy indil constitution ba ils nous ont menti ou maintenant ils nous ont menti et dans les deux sens mm-hmm. araam na ndax bàyyi fen moo gën jàng alxuraan. gis nga le vrai problème que nous avons dans ce pays là. très rapidement c'est problème de crédibilité. Mhm. de l'homme politique. c'est un problème de crédibilité de l'homme politique te ki lay jiite boo ko mënulee am confiance ci moom ndax sàmmookat doom ki lay jiite bu fekkee mënoo am confiance ci moom si par parparloo bu fekkee mënoo am confiance ci moom ci daan gi mu lay daan wala làmmiñ bi muy teg ci sa kaw wala doole gi muy teg ci sa kaw ala kulli xaal boo muñee tey muñ suba gannaaw suba gannaaw suba bis dina jot ngeen ngeen ni kërtim te leneen di taqale du jàmm ak salaam et c'est ça le problème que